لا إله إلا الله فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا إله إلا الله لا إله إلا الله ci lu kawe njortam te ànd ko moom ak njaboot jéeg ñëpp rek ànd ak wér ak wér la fekk koy déwéni déwét te soxna seet taxawaayam bi yàgg lool moom itam ndax lépp lu fi lu fi jag rek lépp rek ci loxoom la jàpp waaw moom ñun moom ay suggalan rek ay dongal ñu topp ci ginnaaw yàlla na lépp barkeel daal ci barkeel suñu yàlla di moom Alhamdulillah ci ginnaaw bu ñu sant yàlla ci yonante bi hmm, hmm. di sant bu baax Serigne Touba di wax jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall di sant semua wasila Serigne Fall di fan boobu tur bi di koy ziare di ko ñaanal fan bu lool te ànd bu wér di suñu jëwriñ soxna yow suñu yaay soxna Jóoba Mbàkke di koy ziare bu baax ak njaboot bi yëpp nag di nuyu ñëpp Serigne Aliou di nuyu bu baax di koy ziar di ziar ñëpp nag suñu mbokk taalibe parce que lépp lépp lépp maanaam ci pas-pas lañ koy kan, defe kon bu fekkee ne pas-pas ak ñun àndal suñu mbokki taalibe yëpp itam ñu ànd ci pas-pas liggéey ko ci pas-pas kon lu mën a jafe ndax lépp pas-pas la te pas-pas sëriñ ya, Fall Fall Mbawar kan mi nga xam ne kan ni moo waral lii lépp di borom ndogu yi doom sëriñ Aliou Fall Mbawar nit ku baax nag koo xam ni ku bëgg sëriñ Tuubaa lépp lu mu am rek sëñ Tuubaa ko gënal di ko ñaanal moom it na ko yàlla may fan bu gudd may ko wër te ndog bi ñu mu taxawal yàlla na dem di ko taxawal ba day bay Seex di ko taxawal yàlla mën na ko yàlla na ndax ci am pas-pas la ku ci bëgg la ku ci am yéene la sant bu baax nag it mbooloo mi ko yàlla booleel ñu taalibe dëgg yàlla ñun ñëpp kenn ku ne pas-pas nga fi ñëwee bëgg nga fi ñëwee yéene nga fi ñëwee dama naa ñu ñu àndee nii dafa am solo ndax kenn ku ne boo ñëwee ci kër gi pas-pas bi nga fi taxawee ak yéene bi te danga defee ne sax moo ëpp sa sa kàttan te loolu lépp moo waral lii lépp kon nag ñu ngi ñu leen di ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom taxaw leen te jàppale leen ba lépp lu ñuy liggéey ci kër Cheikh Ibrahima Fall gi daal ñu Aliou Fall seen bunt sëñ ay Fall Fall Mbawar yal na ci yàlla yal na lépp jàppandi ndogu yi ñu bokk kenn ku ne mën na ko sa bopp ndax xam naa ne ñoom am nañ yéene ji am nañ pas-pas bi am nañu yitte ji ah, ah gi nag suñu borom a ko moom nañ ko ñu ngi koy ñaan sotti leen ko ba kenn ku ne man la nga mënoon ren man lu ëpp lu ëppaat daaw déwén yàlla mën na ko yàlla ko yàlla def ñu ngi sant ñëpp sant jigéen ñi it macha allah ñoom jàmbaar lañ nit ñi ngi takku ne ci waañ wi bu màgg koor bi commencé kenn du wut kenn dara kenn ku ne yaa ngi xënte woon ndogu yi ak nu mu baaxe ak nu mu rafet kon nag ñoom ñu ngi leen di ñaanal kenn ku ne daal li nga ci fas bu ko ci na ci yàlla def ko ñaanal baax moom bi daal ndogu yi yàlla yàlla yàlla mu nekk Seex Ibra Faal waaw taxawee taxaw ñu ne fii ci ëttu maam Cheikh Ibrahima Fall murid Sëñ Tuubaa bu mag ba di ziare ñëpp nag di ziare taalibe yi di ziare mbokkum dëkkandoo yi ak mbokkum jullit yi rawatina sunu jëwriñ sunu xarit sunu wóllëre sëñ Falil Fall Mbaor di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ak wérle jàmm ci ànd ak jàmm yàlla gu nangu ba yéene ji mu am ci liggéeyal waajuram ba Sëñ Daali Fall ak maamam ja murit sëñ Tuubaa bu mag ba sunu borom may ko kattan ak man ak tal ak fekk ak dal te ñaan moom di gërëm nag di tamit njaboot gi fi bàyyi ci ginnaawam ñu tàmbalee tamit ci soxna Ndioba Dan muy Baye Fallou sëñ Fallou fal Mboor ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér ak wérle ci taxawaayam it ak soxna si tamit wax dëgg yàlla macha allah ndax euh, sëriñ bi néewu fii sax dafa ne ci mission waaye nag mi ngi mel ne sëriñ baa ngi fi ndax euh, pasteefam ak iteem lépp da ko def ci liggéey bi ba daanaka fi mu nekk sax ñun xàmmewuñu sëñ bi nekk rek fi wala néew fi. ñu ngi siyaare tamit euh, rakkam ji soxna Salaama tamit di ko ñaanal gudd fan gu ànd ak wérlu wérle moom it yéen ji mu am ci kër gi tamit suñu borom dooleel leen tey jii nag mooy ñaareelu ndogu yi nga xam ne mooy ñaareelu ajjuma yi nga xam ni moom la ñuy liggéeyal sëñ Cheikh bu Souhaïbou moom sëñ Souhaïbou mbake moom sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nga xam ni dafa ne jëmm joo xam ni bi mu woowee sëñ Fallu di ko toggaloo ndogu yi bi mu ko ko wexe sëñ bi def ko ne bàyyi bis bu ne may toggi ndogu sëñ bi ne ko loolu moom bëgg naa ko loolu waaye àggagun ci bés bu ñu demee ba àgg ci mënu ci waxee ndigal da ko def lii ndigali jamono yi mooy ajjuma ju nekk dee ko def looloo waral nag sëñ falu fal Mboor ca tab ga jëmm ji nga xam ni léppam da koo jox maamam ja rek mam Cheikh Ibrahima Fall mu sëñ Tuubaa bu mag ba di xaytum jëpp nag ab doxam ab yëngoom ak dalam lépp da koo jox maam Cheikh Ibrahima fal fal yàlla na fi yàgg tànd ko wér gu wér li Mama! moo Fall Mbaor la ñuy wooyee baayam. dëgg la sëñ Aliou Fall

Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Yeah, my dad, get out. salaamaaleykum wa rahmatulah. mbokk bu baax a baax kenn ku santam ci turu sëriñ si Ahmadou Mbacké Souhaïbou dinañ jot sant siyaare ak sant ak gërëm ndax saa bu ngeen masaan ñëw. nee na saa masaan ñëw. moo leen di teerul boppam. moo leen di teerul boppam. yaakaar naa ba ajuma bi paase rek. ba yaakaar naa ne ajuma bi mu paase rek. bi mu ñëwee yéen gis ngeen ko. bi mu ñëwee yeen gis ngeen ko. waaye nag comme coonoy màggal gi moo waaye nee na comme coonoy màggal gi moo tax. moo wax ñu ne jéem ko wuutu fi donte matuñu ko mu ne nee na nañ ci ñëw jéem koo wuutu fii donte matuñu ko ñu ànd ak sëriñ Amsatu ñu ànd ak sëriñ Amsatu ak sëriñ Abo ak sëriñ Abo ak mbokki taalibe yëpp ñu taxaw ngir bëgg leen a dalal ñu taxaw ngir bëgg leen a dalal di sant bu baax a baax di sant bu baax a baax sëriñ bi nee na mi ngi leen sant sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant gërëm bu baax a baax di leen gërëm di jiital ci cant gi di ci cant gi ak nuyoo gi ak nuyoo bi ak bi ak siyaar bi doomi ndeyam doomi ndeyam di taalibeem di taalibeem sëriñ Fallou Fall sëriñ Fallou Fall di ko sant bu baax a baax di ko sant bu baax a baax cëram. ci taxawaayam tey ci taxawaayam tey. ak taxawaayu démbam ak taxawaayu démbam. di ñaan lii muy def. di ñaan lii muy def. di ko indi di ko indi fii. di def sa sa di ko def saa su ne. te lépp ak yonente beeg sëñ tubaa tax. te lépp yàlla ak yonente beeg sëñ tubaa tax. ak mbokk gi mbokk ak moom. ak mbokk gi mbokk ak mu jaay lépp mu jaay jënde ko ak jënde ko ak di ñaan suñu borom yàlla leen dimbali. di ñaan suñu borom yàlla leen dimbali. yàlla na yàlla yàggal mu yàgg fi lool. ba li mu yéene ci Cheikh Ibra lépp mu matale ko te ngeen ànd ko ak moom di jël nuyoo bi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxol jëwriñ di ko teg ci loxol jëwriñ soxna Kumba Mbeng mi ak soxna Kumba Mbeng mi nga xam ne jàmbaar la ci ci ci foofu lool jàmbaar la ci waar wi lool di di di di soxna sëñ Aliou Fall di soxna sëñ Aliou Fall di sant borom këram bu baax di sant it borom këram bu baax ci taxawaay yi ak pastéef yi sëñ bi gën a gis na ni mi taxawoo waajuram bu baax sëñ bi nee na gis na ni mi taxawoo waajuram bu baax gën a soññ mi ngi koy gën a soññi mu takkaat laxasaayam mu takkaat laxasaayam gën a boole njaboot gi gën a boole njaboot gi gën a boole taalibe yi fas yéene lii fas yéene lii ci maam maam la sosoo woon ci ci lii nga xam ne ci maam la sosoo woon ci Cheikh Ibra ba ci sëñ Aliou Fall Mbawar ba ci sëñ Aliou Fall Mbawar ba ci sëñ Fall taxaw di koy taxawee ba ci sëñ Fallu taxaw taxawaay bi taxaw taxawaay ba loolu taxaw taxawaay bi loolu ba mboolem mbooloo mépp ba booleem mbooloo mépp saa bu lii jubtee saa bu lii jubtee ni mu ko doon taxawee rek ni mu ko daan taxawee rek mu taxawee ko noonu mu taxawee ko noonu yàlla na ko suñu borom dimbali yàlla na ko suñu borom dimbali leen ndam defal leen ndam barke Seexul Xadim ci barke Seexul Xadim jërë ngeen jëf ñu ngi soxna Njóob bu baax jërë ngeen jëf ñu ngi soxna Njóob bu baax ak njaboot yëpp ak njaboot gi ñëpp bàyyiwul kenn jërë ngeen jëf li sëriñ bi waxoon na gën naa mat lii li sëriñ bi waxoon nee na gën naa mat lii. lu ci dëgg rek suñu matadi la. lu ci dëgg rek suñu matadi la. jërëjëf lépp mën na lépp mën na lépp mën na lépp mën na. tàllal leen mu ñaan amiin amiin. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Cheikh Mbacke Samb ñu ngi lay nuyu ñi nga àndal ñëpp te bàyyi ko ci sunu xarit sunu doomu baay sunu jaam sëñ Fallou Fall ma wax ci di am mbégte nag ci ndog yi ngeen andi te muy loo xam ni maam moo ko daan defal sëñ daan ko defal suñuy waajur maam tam dañu koy defal barki démb bi ma jógee cees laa ñëw fekk fi ndogaluñ ne ma xalif Sall de Baye Fall moo la ko yónnee ñaareelu ndogal tey jii ma sëñ faal Fall moo la ko yónnee loolu nag ma ci sant bu baax a baax di dem occasion tam ngir ñaanal sëñ Fall Fall ndax mbokk la xarit la taalibe la di ko sant si jëf ji mu def defal ko boppam waaye defal na ko roye ko ci baayam ak i maamam la sëñ Tuubaa baayam nag daloon ay maamam yàlla na ci jot moom ñi ko àndal di ko jëf ñëpp jëf ji baayam daan jëf itam di togg ndogg ba noppi di ngénte jumaa ji xam ne bañ ko bañ ko jullee ba ba mu fi jóge ajjuma jot mu rey nag te booba jamono neexut yoon yi naqari na waaye teewul ajjuma jot daana togg ay ay ay ay ay añ yu bari di ko yët ki fi nekk Sëñ Tuubaa kon day mel ni loolu seen deret la nekk lëggay Sëñ Tuubaa day mel ni deret seex bi la nekk waaye nag wàll na ko ak njabootam ndax jëf ji ba léegi day yokk rek waaye wàññi ko tokk yëpp yaa waañ seex bi nag moom dafa am ci sëñ Touba cër boo xam ne yomb taam ndax sëñ Touba day géej waaye Cheikh Ibrahima tam géej la géej nag moom mooy ki nga xam ne ndax dañu ñetti wàll yu mu am ñett wu teen wu dex géej teen da koy gas benn nga jot ndox benn nga bañ am ndox benn nga am ndox ba jàgg mu sakk mooy wàll yu nga xam ne bu defee lu naqar yàlla dootu nekk wàll waaye nag ku mel ne siyaar bi nga xam ne géej la géej moom daa xajoo lépp géej da ngay naan fii léegi pour ndox fii léegi jàpp fi jibi tilim mënta mënta mënta mënta mënta tilimal géej seexal na géej la moo tax ak njabootam nuñ mën a mel rek hmm? xajoo na ko te mën na mën na leen fóot bañ seet wecc moo tax nag kon ku ci bokk na pas-pas ku ci bokk na nga am ngëm-ngëm ku ci bokk na nga nangu liggéey ku ci nekk ku ci bokk na nga ormaay sëñ Tuubaa fi fi fi li mu defal sëñ ñëpp defal nañ ko waaye nag lu ko defal loo xam ne kenn fekku ci mooy orma ji mu ko jox ci la mën a ñëpp te suñu borom dafa ne ormal lu yàlla ormal sa mbir day yokk moo tax nag mbirum Seex Ibra day yokk ba faaw kon ñu ngi sant sëñ Fallu Fall di leen sant yéen ñi indi dog yi yéen mm-hmm. ñaar yàlla faj seen i aajo dafa leen ak yokk dafa leen ak mucc dafa leen ak wér dafa leen ak jariñu te ëllëg ci barke Cheikh Fall asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf Serigne Cheikh Mbacké Sambou le grand euh, régiste réalisateur cadreur monteur euh, grand homme de média euh, boo xam ne sunu goleel yàgg na lool ñu ngi sosoo rek ci Serigne Touba ci liggéey Serigne Touba bi nu bokk rek ak yéen ñi ci am ci la sosoo euh, ci euh, cheikhibrafal.com bi nga xam ni nag ba léegi euh, moom maa ngi ci nii sax li may wax ak yéen ci laa nekk nii di di liggéey ngir yeesal ko kon maa ngi lay sant bu baax a baax ci laaj boobu damaa nekk fii nag ci Europe am ay yite rek. lu ma waaye e, ndaw yi moom bu ñu faatu woon nekkatu woon man dafa naa njot ci ne day yokku waaye du wàññi ko mukk ci àdduna ndax ñun fa nekkal e, xam nañ lañ war a def mën nañ ko te ñoo ci bokk yéene muy soxna Njoom Mbàkke moomu ak ñamu àndal ak taalibe ya euh, xarit rek suñu am di jàmm ñoom ñëpp ña nga sa di ko jàpp ba tax na euh, dara du ci wàññiku wax day yokk rek gën a baax gën a rafet lépp Sëriñ Tuubaa rek li xam ni moom euh, amul marche arrière moom oto Sëriñ Tuubaa amul marche arrière marche avant rek la am waaw jëm kanam rek kon loolu moom sunu xel dal na ci bu baax a baax ah, bu nu sañoon nag fekkee ko ndax Cheikh Ibra <laughs> ñëwoon na bi ñuy gas raayu eh, Jurbel tubaab bi ñëw fekk sëriñ Modou Moustapha Fall nu bàyyi sunu sunu sëriñ di taawam nekk ci liggéey bi di ko taxawu mu ko man ne bu ma xamoon ni su ma amee doom mu dox diggante lan lu ma war a defal sëriñ Tuubaa kon du ma am doom waaw ñu ne loolu euh, moom moo nu animé rek waaw maanaam daal bëggul leen lu dox suñu diggante ak liggéeyal sëñ Tuubaa ndox ci la suñuy maam amee lu ñu am ci la suñuy bàyyi amee lu ñu am ñun it ci lañ yaakaaree suñu tey suñu ëllëg lépp lu war a mën a am rek ci lañ ko yaakaaree mbir bi nag daa mel ne dafa niru ne dañuy toog muy dox waaye déedéet tooguñu tooguñu muy dox de tooguñu muy dox de waaw dañoo dugg ci euh, saxaar guy dox muy saxaaru sëriñ tubaa wala boog gaalug sëriñ tubaa nga xam ni kenn ku ne danga yor page maa di joow euh, boo jooyee rek mu dox yóbbu la fa nga jëm wala muy naaw sax nag mel ni avion waaye toog ñu muy dox waaw kuy sëriñ tubaa daloo toog daloo noppalu waaye ku koy liggéeyal pay ga bu ko ñu xamut gisee dañuy defee ne da ngaa toog rek mu doon ndox fekk du noonu waaw ndogu yi bañ koy tàmbalee ak léegi nii mat na fukki at ak juróom mu jege ko lool te jubluwaay bi mooy du lenn lu rek euh, gën a yaatal liggéeyu bokk ci wàkk Sëriñ Aliou ah, yàgg naa ko wax Sëriñ Cheikh Fall Mbawor yàlla na fi yàgg loolu te mooy xalifa Cheikh Ibrahima Fall te ku ne gis na liggéey bu rafet bi nga xam ne mi ngi koy liggéey ak taxawaay bi nga xam ne mi ngi koy taxaw di euh, sagal maamam di sagal kër bayam di Serigne Aliou Fall Mbawar ñun ñu am rek Serigne Aliou Fall Mbawar moo ñu ko may ndax yaakaar naa euh, sunu sunu sunu suñuy may moom jóge tukkeewul suñu ndey suñu may ci suñu barke tukkeewul suñu ndey suñu bàyyi la tukkee mu kër Serigne Aliou Fall Mbawar kon ñu ngi sigal kër Serigne Aliou Fall Mbawar bu baax a baax ñu ko ci sant ñu ko ñaan mu yàgg fi te wér ñu euh, ci barkeelu rek te ndax kër Sëriñ Tuubaa dafa yaatu te lii dafa dafa dafa loo euh, seetloo euh, comme ni wax léegi rek moom tàmbalee ba léegi di gën jëm kanam ren jii am na ñu ci dugg ñoo xam ni am na ci ñu ma xamut ñoo xam ne mosuma leen a gis nekk Amérique ah, ñu nekk Espagne ñoo xam ne xëy na benn laa leen gis wala ñu sax samay taalibe jol mooy tudd seen tur ndax ma soxla wuñ ko yàlla lañ tax def waaye def nañ ci loo xam ni sama taalib yi nga xam ni maa dox seen diggante ak seen tubaab sax defuñu ko ci ci yéene waaw te laajuma leen ko ñoom ñoo toog ba jàpp ni rek euh, am nañ yéene barkeel suñu barkeelu ci loolu mooy doxal yoon yi loolu niwul nag da muy dox déedéet du loolu waaw ñoom ñëpp ñu ngi leen sant baax a baax leen ñaanal yàlla dolli leen yokku leen waaw li tax ñu di ko def nag kom ni wax rek mooy suñu tubaab kër suñu tubaab dafa yaatu Euh, tendance yi wala tradition yi mooy dañuy jàpp rek ku fa nekk doon xalifa ba nekk ci kaw rek maanaam dañoo war a buub lépp xupp la euh, ba tax na ñun ñu décentraliser ko dañuy wax tuuti donte euh, la fi maam yi bàyyi woon ak cosaan yi jëmuñ ci din waaye gën a yaatal rek la dem moo tax waxtu bu ñu toggee rek dañuy yóbbul koo xam ne sunu sëriñ la di sunu di sunu di sunu mag di sunu doomu ndey di sunu xarit di sunu lépp muy sëriñ Cheikh eh, lim ba nga xam ne moom la sunu bàyyi daan jël di ko yóbbu eh, kër sëriñ Tuubaa ci weeru koor yi muy fukki bool ñaar waaye nag eh, ñu jàpp ni itam comme ni ma ko waxee léegi rek ñu yaatal ko da ci baax ndax am na yeneen ñu bokk ci sëriñ Tuubaa bokku ceeg ñoom tolluwaay ak daraja te xëy na lañuy yóbbu ci kër xalifa ba danañ ca jot sax xëy na am ñu ca jot waaye xëy na am na fa du fa àgg moo tax ñuy jéem a yaatal rek euh, ajuma ju ne bu ñu jëlee sunu fukki bool ak ñaar yóbbul ko suñu Cheikh Say ba nag juróomi bool wala juróom yoo xam ne dañ koy tànn ci yenn ci sëdi Sëriñ Tuubaa leen ko donte mënuñu koo matal waaye nag ngir fësal yéene loolu mooy euh, mooy sunu sunu sunu motivation tey ndab yaat ah, nu ma ko waxee rek dañuy jéem a fexe rek ba nu mu gën a mën a selle gën a gën a baax rek ñu ne ko waaw loolu ñuy def ñu ko muy bari wala muy këf yooyu yëpp amul solo li ci am mooy yéene ji waaw ah, ndax li ñuy wax rek innamal amalu bi niyaati wala wa innama li kulli imrin ma nawa waaw ah, bu ñuy fësal suñu yéene buñ ko mënoon motaleet képp koo xam ne sa nitubaay sa maam eh, danañ jël ndab andil la ko sa kër waaye nag ginnaaw mënuñu ko Ehm, ñu tàmbali rek def liñ mën te at mu ne ñu yokk ñu ko gën a yokk mu ne ñu ko gën a yokk waaw kon loolu daal moom mooy jubluwaay bi sant nag taalibe yëpp nag ndax lépp ñoom la sant taalibe di sant xarit yi mbokk yi am di yi te taxawaay bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy taxawu ah day xam ne rek ne ah li ci am solo daal mooy yéene ji rek